Alioune Soumaré mm. maa ngi lay mm. nuyu. maa ngi lay fay bu baax Ndeye Comba Moreau. voilà Alioune Soumaré nga nekk consultant sportif ancien international sénégalais laaj bu njëkk nekk euh, question d'actualité Pape Thiaw euh, topp ci tànkuy Aliou euh, Cissé moom nag gagné na li nga xamante ni moom mooy CHAN bu 2023 ban analyse ngay def ci raaye bi coupe bi nga xam ni Sénégal andi na ko. waaw ah, jërëjëf si euh, question bi li ma ci jëkk a xam mooy euh, contentement bu rëy la si la si ci am ñun ñëpp sportif sénégal yëpp ndax euh, gagné CHAN te fekk toog nañu fukki at benn woo xam ne demuñu si dellu si si si si si si année bi jël coupe bi moo lay wan ne ah xale yi def nañu ndam bu rëy rëy ànd ak seen sélectionneur muy Pape Thiaw. donc yow euh, victoire bi lan la la inspiré Pape Thiaw lan la la inspiré de même que les joueurs. waaw li ma inspiré mooy liggéey bu bu bu bu takk bu mu def ndax euh, gis nañ ne sélection bi mu ko jëlee léegi am na travail bu mu si def parce que yàgg nañu bañ a mun a qualifier depuis fukki at benn yi ma wax moom mu ñëw qualifier ko mooy premier jàngat bi deuxième jàngat bi mooy liggéey bu rafet bu mu def pendant presque plus d'un an travail stage fermé yi mu doon def match amicaux yi mu def ak moyens yi ñu ko met mu mettre en place équipe boo xam ne vraiment bi mu demee am na taxawaay boo xam ne mooy indi ndam bi tey moom a xale yi ñu leen di jaajëfal di leen euh, encouragé bu baax ci résultat voilà mais lan moo waral euh, Alioune Soumaré CHAN bi amul noonu engouement nit yi duñ koy sax suivre bu baax a baax. waaw xam nga li tax amul engouement ak te nit ñi duñ ko suivre bu baax mooy. lii euh, compétition la boo xam ne ñii football ci seen dëkk rek la ñuy jël buñ ci boolee sénégalais yi wala yi nga xam ñu ngi joué ci beneen dëkk ay Europe wala beneen même sax sénégalais buy joué fii Guinée te nekk sénégalais sax waroo bokk. Mhm. donc il faut ngay sa championnat bi nga bi nekk sa dëkk. loolu tax ñu bari te championnat yi nekk ci dëkk ñi ñu ngi seetaan toujours ay Bayern de Munich ay Barcelone foofu la seen xel di gën a nekk. alors que dañuy fàtte ne Sénégal bi ñu nekk am na championnat am na ay club yu fi nekk di di góorgóorlu di bay seen waar am na même ay club professionnel même su dee professionnalisme demeewul noonu mais wane ne am na ay sénégalais yoo xam ne fi leen nekk daan fuba boo xëy am tuuti euh, passe-passe ñu jël leen yóbbu leen alors moo tax ñu bëri duñ ci bàyyee xel te am na équipe yu dëkk yu bëri yoo xam ne aussi CHAN bi duñ ci bokk ay Égypte yooyu sax wala ay ay dañuy bañ a bokk bii édition bi ñu bi ñu teg nii tey. Euh, Maroc sax ñëw na sax ñëwul parce que duñ ko daal comme ni ñu ko war a fayda alors que moom moo jël ñaari trophée yu mujj yëpp Maroc ko jël loolu mooy tax ñu bari duñ ci bàyyi xel lu voilà léegi euh, Pape ñu gis ne euh, bi nga xamante ni plutôt sa Alioune Soumaré Pape Thiaw jël na. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. bi ñu bëri jàpp na ñi fi ñu toll nii war na mën a uutu euh, Alioune Cissé ci bopp équipe nationale est-ce que yow d'accord nga si loolu waaw wala déet. man de wax dëgg yàlla d'accord si parce que Euh, al euh, Pape Thiaw mi ngi door a te dañuy fàtt sénégalais dañuy fàtt ne Pape Thiaw jaar na ñaari tali bii ñu nekk bi mu dëkk bi nga daan waa nga xam ne ne ko ba defa fa résultat ba ñu ba ñu géej ba ñu ba ñu dàq ko comme ni ñuy waxee dan ko limogé woon foofu donc après jox ko sélection bi jox ko les moyens jox ko ay préparation bu doy mu ñëw def résultat c'est très bien waaye pour man teel na trop pour ñu jox ko sélection A parce que Aliou Cissé sélection A bi ñu ko joxee toog na diir bu bare avant résultat yi di ñëw. Mhm. façon critique bu rek jot parce que équipe nationale CHAN A équipe nationale A bokkul parce que fële da ngay am affaire ay professionnels yoo xam ne ngi joué ci club yi gën a mag ci àdduna. Mhm. nga dajax ñoom yeneen dëkk yi aussi indi seen seen joueurs yi gën a mag ci seen seen dëkk teg leen donc football yi du benn euh, yëf yi du benn pour man na continuer jàngaat tuuti ba ci kanam ñu door ko jox sélection bi loolu mooy sama gis-gis. parce que sélectionneur équipe A yombul parce que sélectionneur yi ngay daje c'est les meilleurs sélectionneurs du monde ñoom ngay dajale ak xam-xam bu takku la ñu am ak pas-pas ak vécu bu rëy la am door a mën a def résultat. Euh, léegi euh, est-ce que d'accord nga ci neexal bi nga xam ni euh, njiitu réew mi daf ko neexal gaynde yi gagné CHAN bi jox nañ ku ne dix millions ku ne terrain wu cinq cent mètres carrés naka nga gisee neexal bi baax na wala baaxul. baax na lool parce que nag boo xoolee xale yi ñu jox dix millions jox leen terrain en cinq cent mètres carrés bokkul ak prime yi ñu am prime de participation yi ñu am ak prime yi ñu am match par match par victoire ba àgg final donc boo ko boolee loolu yëpp dina nekk xaalis bu takku pour ay joueurs yoo xam ne fii club yi ñu nekk bu ñuy dem entraînement sax car rapide la ñuy jël wala du ñu am sax passe wala bu ñu amee payoor léeg-léeg ñu fay leen léeg-léeg du leen pour man baax na léegi dañ si jàppandi gën a góorgóorlu pour ëllëg je pense que récompense bi man gis naa ne. Euh, ëppul daal am na sol ëppul ah? comme ni ko ñenn ñi xalaatee ëppul. non ëppul ëppul parce que euh, àdduna moo dëkk moo doxee noonu jamono moo demee noonu man su ma la waxee ñun suñu jamono bu ndaan am prime prime de match ay vingt cinq mille loolu am. xam nga mm. loolu moo lay wan ne. Mm. yëf yi avancé na avancé na àdduna moo avancé na lool lool lool ba pare am ay préparation am ay conditions d'hygiène yu baax ay suivi médical donc baax na si peut dans un premier Euh, xale buy dëkk ak fii jàng football fii di fayee ko même pas cent mille francs par mois xëy ñu jox la dix millions jox la terrain nga indi ko seen kër. Hmm. yaakaar naa ne am na koom-koom bi indi si biir kër gi pour man de jaadu na baax na. 6 euh, février bi di marqué at gannaaw Sénégal bi mu gagné Coupe d'Afrique des Nations. Euh, hmm. loo si mën a wax Alioune Soumaré. waa lool mooy wane ne moo lay wane le football sénégalais léegi am na taxawaay bu mat sëkk en Afrique temps yëpp dañ doon wax ñooy première nation mais li ko li ko do amul woon firnde bu taxaw bu ñu mën a jàpp comme kan comme bit bit soccer comme comme comme comme football euh, locale muy chan bi léegi yooyu yëpp euh, dajale nañ ko taxaw moo lay woon ne léegi Afrique daal ñoo fi teg tànk pour le moment waaw te lan lañ mën a def pour suqali surtout football local bi junj nga ko léegi sax a joueurs yi mhm. dañuy euh, développer ci précarité bu métti métti lan lañ mhm. mën a def pour football local bi gën a euh, taxaw ndaw yi nga xam ni tamit ñoo ci nekk ñu gën leen jox seen gëdd qu'est-ce qu'il faut premièrement il faut une réforme réforme bi war a jëkk def mooy comme réforme Lamine Diack bi mu defoon en soixante dix wàññi club Dakar yi parce que Dakar foo tourné am na club am na club finalement joueurs dañuy force dañ koy disperser dañuy wut quelques clubs à Dakar région bu nekk am fa ñaari club yu baax yu foor nga xam ne sponsors yi ak sociétés yi ak état bi dañ siy dugal xaalis bu bari joueurs yi ñu leen di mën a fay salaire bu baax a baax a baax a baax boo xam ne mën nga toog juróomi at fii Sénégal doo dem ndax li ngay fay ko mën nga si dund yore sa sa waa kër dimbali say waajur léegi nag bés boo gisee contrat bu rëy a boo war a dem à ku de millions et de milliards nga mun a dem loolu mooy tax football bi gën a dëgër gën a am doole ba pare bu club bi bu demee en Afrique mun fa def résultat parce que actuellement jël leen san bi de mais boo xoolee suñu club yi kenn qualifié wu si si club si équipe euh, championnat club yi ngi jël ay ligue des champions wala mm-hmm. coupe des confédérations moo lay wan ne mm-hmm. ba léegi am na lu des si football local bi euh, donc léegi euh, lan mooy défi wu foot sénégalais bu fekkente ni fi ñu toll nii gagné na loo xam ne dinañ leen reconnaître carrément léegi lan mooy défi bi ci kanam défi bi mooy comme jël nañu lépp léegi toog si suñu place bañ fa jógee maintenir cette position là pendant quelques années parce que loolu li ñuy wax naan yéeg sa kaw yomb na waaye des fa moo jafe léegi nag dafa jéem a des le plus longtemps possible parce que la kuli àlin fa wàcc am un jour mais nañ fa toog le maximum de temps possible gagner si le maximum de trophées avant de, de, de passer le terrain parce que àdduna moo tëddee noonu sport moo tëddee noonu donc pour taxaw foofu nag il faut que les moyens ñu continuer di ko mettre ci club continuer appuyer les sélections pour mun a rester ci place bi ñu nekk. waaw ñu gis ni tamit si li nga wax noonu dañuy gis ni euh, bu ñu nee sport rek dañuy foog ni football la wala sax équipe nationale bu mag bi euh, ba mhm. tax na moyens yu bëri duñ ko jox ñeneen ñi muy ñu nekk ci euh, muy joueur locaux yi ainsi de suite yow lan ban lan ngay suggérer état wu Sénégal par rapport ak politique bi nga xam ne teg na ko ci wàllum sport. waaw par rapport ak politique bi mooy d'abord li ma jëkk a ñaan mooy budget budget sport ñu yokk ko bu baax a baax a baax parce que si budget gën a néew la bokk ba pare euh, comme ni mu ko waxee ñu sel ñu subventionné club yëpp wàññi leen restructuré waat leen wàññi leen net leen dans de très bonnes conditions yoo xam ne dina leen permettre euh, ñu mun a taxaw taxawaay bu dëgër dëgër dëgër si li ñu mois je pense que loolu bu ñu ko defee ah football bi na avancer ba pare yeneen discipline aussi ñu jàppale leen parce que sélection nationale sélection nationale la raaya Sénégal benn raaya la hymne national benn la képp solati mayo raayal Sénégal dem ab bitim réew boo indee ndam ñu jox la xaalis jox la terrain comme ni ñuy defalee ñëpp parce que fii gis nañ fi ba léegi ay champion par exemple ci ay karaté wala ay discipline yoo xam ne am nañu ay raay te kenn recevoir leen loolu tam loolu lu ñu mës a seetaat la lu ñu war a euh, euh, jubbantiwaat la. Euh, Aliou Soumaré laaj bu njëkk est-ce que laaj bu mujj plutôt est-ce que d'accord nga euh, si ñi naan euh, jot na Aliou Cissé puus nag keneen ñëw toog voilà. ñu waaw Aliou Cissé waroon na ko def bi mu jëlee Coupe d'Afrique ba pare toftal si qualification Coupe du Monde dem Coupe du Monde man dama yaakaaroon ne. bu jógee si Coupe du Monde bi dafay bàyyi parce que mënatu fi def lu raw li mu def daanaka donc da ngay bàyyi daal daal di dem relever yeneen défi bu ba yeneen i jamono sax bu la neexee nga ñëwaat mais lii mu def nii pour defar lu ni mel lu jafe la te lépp lu mu fi def lu lu méngoowul ak li mu fi defoon échec lay doon moo tax ñu bari bu ñu defee résultat bu baax ba pare dañuy dem il se retire dem def leneen après nga boo leen soxla soxlawaatee plus tard ñu ñëwaat mais lii lii moom xam naa ne dina jafe pour mu defar résultat donc pour man waroon na ko def mais comme opté wul pour dem <laughs> nañ xool euh, fu wanante yu wuteex ay ay gëtam léegi Coupe d'Afrique bi di ñëw moom euh, défi bi mu war a am mooy conserver ce titre voilà foofu nag la jafe-jafe bi nekk moo tax war pour man waroon na dem ba ma paree si yooyu. Mm. la waroon dem. voilà Alioune Soumaré Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal. man maa leen di jaajëfal Ndeye Comba Moreau. voilà may fàttali ni consultant sportif nga fii ci kër gi nekk ancien international sénégalais merci beaucoup pour la disponibilité. Merci. C'est moi qui vous remercie.